من ظن غير الله يغني أو يضر mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di tuubaa ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell. seetlu nañu tamit ne bëri na soxna yoo xam ne bëgg nañu borom kër mais daanaka day mel nii dafay jafe daal yi soxna su bëgg borom kër moom loo ko mën a baaxee. waaw bu dee jigéen goo xam ne daa toll ci wàllu am borom kër tam jafe ko te célibataire yi jigéen yi bari lool ci jamono ji léegi liñ leen di laabiire rek mooy képp koo xam ne bëgg nga boroom kër na def lii ma ko wax. ci kàttanu yàlla bu ko defee balaa fu den see ruus mu am boroom kër mooy suuratul fajri lay bind ba àgg ci aay bi yàlla naan fa akramahu wa naamahu fa yaquulu rabbiya akramani mii mook koo gi noonu miin gi lay ubbi mu dugal turam ci biir bu ko defee mu jël saafara soosu mu jàmb ko saafara tooyle ko fuddan fuddane ko ay loxaam balaa fuddan see jeex mu am borom kër ci nu yàlla incha allah lu wér la lool noonu waaw te li ñuy wax nag amul lenn lu ci sikk maanaam képp ku ci sikk sàkk na ko jëf mu xool waaw man zanna ghayra allahi yughni aw yadur fasaka bi darayni sukadil wadur mbokki talibé yi mbokki julit yi ngir ngeen mëna am ay xibaar yu sell bayiko ci dëkk bu tedd bi di Touba ak liko wër ak mbollem aduna bi wërngal kep abonné len ci chaîne chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell